Oh. gën si ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba ki gën si ñun Xaadimu Rasuul moo gën si ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba ki gën si ñun Xaadimu Rasuul moo gën si ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba ki gën si ñun Xaadimu Rasuul moo gën si ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba ki gën si ñun Xaadimu Rasuul moo gën si ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba ki gën si ñun Xaadimu Rasuul moo gën si ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba mi gën si ñun Xaadim Rasul gën si ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba mi gën si ñun Xaadim Rasul gën si ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba mi gën si ñun Xaadim Rasul gën si ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba mi gën si ñun Xaadim Rasul gën si ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba mi gën si ñun Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñun moo gën ci ñun jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñun Xaadimu Rasuul moo gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñun Xaadimu Rasuul moo gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñun Xaadimu Rasuul moo gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñun Xaadimu Rasuul Ahmadou Bamba Ahmadou Bamba kenn ci ñun Xaadim Rasuul kenn ci ñëpp jërëjëf Cheikh Bamba kenn ci ñun Xaadim Rasuul kenn ci ñëpp jërëjëf Cheikh Bamba kenn ci ñun Xaadim Rasuul kenn ci ñëpp jërëjëf Cheikh Bamba kenn ci ñun Xaadim Rasuul kenn ci ñëpp jërëjëf Cheikh Bamba kenn ci ñun Xaadim Rasuul kenn ci ñëpp jërëjëf Cheikh Bamba kenn ci la soo gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñëpp Xaadim la soo gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñëpp Xaadim la soo gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñëpp Xaadim la soo gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñëpp Xaadim la soo gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñëpp Xaadim la soo Ahmadu Bamba gan si ñun Xaadim Rasuul xeeti nga jërëjëf Cheikh jërëjëf jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadu Bamba gan si ñun Xaadim Rasuul gan si ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadu Bamba gan si xaadim rek moo gën si ñëpp jërëjëf la Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën si ñëpp xaadim rek moo gën si ñëpp jërëjëf la Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën si ñëpp xaadim rek moo gën si ñëpp jërëjëf la Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën si ñëpp xaadim rasool gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñëpp xaadim rasool gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñëpp xaadim rasool gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñëpp xaadim rasool gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñëpp xaadim rasool moo gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñëpp xaadim rasool moo gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba li gën si ñun Xaadim Rasul moo gën si ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba li gën si ñun Xaadim Rasul moo gën si ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba li gën si ñun Xaadim Rasul moo gën si ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba li gën si ñun Xaadim Rasul moo gën si ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba li gën si ñun Xaadim Rasul moo gën si ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba la ci ñëpp jërëjëf Xaadim la soo gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñun Xaadim la soo Rasul gën ci ñëpp te dafa Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñun Xaadim Rasul gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñun Xaadim Rasul gën ci ñëpp te dafa Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñun Xaadim Rasul gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñun Xaadim Rasul gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñun Xaadim Rasul gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñëpp Xaadim Rasul gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñëpp Xaadim Rasul gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñun Xaadim Rasul gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñun Xaadim Rasul gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh ñëpp Ahmadou Bamba gën ci ñëpp Xaadimu Rasuul gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñëpp Xaadimu Rasuul gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñëpp Xaadimu Rasuul gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñëpp Xaadimu Rasuul gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñëpp Xaadimu Rasuul gën ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gën ci ñëpp Xaadimu Rasuul Bamba gerte jub Xaadimu Rasuul gerte jub jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gerte jub Xaadimu Rasuul gerte jub jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gerte jub Xaadimu Rasuul gerte jub jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gerte jub Xaadimu Rasuul gerte jub jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba gerte jub Xaadimu Rasuul xaadim rasool dana defal seef ahmadu bamba xaadim rasool dana defal seef ahmadu bamba xaadim rasool dana defal seef ahmadu bamba xaadim rasool dana defal seef ahmadu bamba xaadim rasool Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba dem ci ñun Xaadimu Rasuul dem ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba dem ci ñun Xaadimu Rasuul dem ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba bamba kenn ci ñun xaadim rasul kenn ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba kenn ci ñun xaadim rasul kenn ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba kenn ci ñun xaadim rasul kenn ci ñëpp jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba kenn ci ñun xaadim rasul jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba jërëjëf Xaadimu Rasuul jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba jërëjëf Xaadimu Rasuul jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba jërëjëf Xaadimu Rasuul jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba jërëjëf Xaadimu Rasuul jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba jërëjëf Xaadimu Rasuul jërëjëf Cheikh jërëjëf Ahmadou Bamba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasool jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasool jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasool jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasool jërëjëf

يكفيهم خادم رسول يكفيهم درجة فسيح أحمد الطم ويكفيهم خادم رسول درجة فسيح درجة أحمد الطم يكفيهم خادم رسول درجة فسيح درجة أحمد الطم يكفيهم خادم رسول درجة فسيح درجة أحمد الطم يكفيهم خادم رسول خادم رسول درجة فسيح درجة أحمد الطم Ahmadou Bamba. li gën si ñun. Xaadim Rasul. moo gën si ñëpp. jërëjëf Seex. jërëjëf. Ahmadou. moo gën si ñëpp. jërëjëf.